ko gisee ni mbokk euh, téléspectateur ñu ngi fii ci euh, fi nga xam ne moo di euh, Ngardiam bokk ci département bu Fatick arrondissement bu la ngarjam nag di ab village séeréer d'ailleurs ñu koy wax Ngardiam séeréer seen émission li askan bi di dundu ni ma ko waxee woon lu ñu yem rek Ndakaaru daanu génn itam dem ci yeneen dëkk yi donc tey fi la ñu ñëw waxtaan si ak ñoom xool seeni i jafe-jafe mën ko fësal ndax li askan bi di dundu loolu moom moo ñu tax a jot dem ci watu askan wi waxtaan ak ñoom ngir jafe yi nga xam moom ñuy dund ñu mën ko fësal ba ñu mën ko saafara fii nag ah, jafe-jafe ndox lañu fii askan bi di jànkonteel ah, bu ngeen gisee noonu ñi nekk sama gannaaw di ay ndaw ñoo xam ni dañu ñëw fii ci dex bi ngir fóot ah, donc duñ ci sori bu baax a baax dañuy dem rek waxtaan ak ñoom bu ko defee ñoom dinañu gën a mën a ñëw ci anam yu mu gën a yaatoo ci li nga xam ne moom la ñuy wut si fii ndax dañu koy liggéey dañ ciy liggéey wala seen yëre la fóot léegi léegi ñu dem waxtaan ak ñoom. te ngeen di fóotee. waaw fii la ñuy fóotee. ay élèves ngeen. waaw Ngarjam Ngarjam séeréer. waaw. Euh, fóot bi da ngeen di fayeeku wala da ngeen di fóot dañuy fóot ni suñu yére la. seen yére la waaw. depuis quand ngeen commencé di fóot su tawee ba fii am ndox. ba fii su feesee fii la ñuy fóotee. Mhm. waaye su day dem ba. nawet bi su jeexee day ah, jeex waaw ah, après ñuy dem ci teen bu nawet bi jeexee ba fii amatul ndox fu ngeen di dem. ci teen yi. teen ngeen dem waaw. footee foofu. seen yéen ay ay ngeen ye ñëpp. waa ñun ñëpp ay élèves lañu chaque sam dimanche la footee fii waaw. metti na kay ndax fii su amatul ndox dangay wor wër ba sonn te doo am ndox. teeñ yi bariwul fii mhm. benn rek la benn teeñ. Mhm. day dem sax ba ndox bi day jeex mhm. doo am fi ngay fóote xanaa dangay fay dangay dem mhm. di fay robine mhm. paan juróom waaw nga mun a fóot xam nga ñetti paan mënul tax nga fóot loolu daa metti waaw bëgg ngeen ku leen jàppale waaw bëgg nañ lool kay lancé leen seen message pour ku ngeen ngeen ngeen wax ni bëgg nañ ñu ñëw jàppale leen parce que ay élève ngeen ah, te chaque samedi ngeen di ñëw fii di duy ndox dem ne wut bu ndox fii amul ngeen dem jëndi ndox paan juróom comme ni nga paan juróom fóotalu leen ñetti il faut ngeen dem ba peut-être ay deux cent cent cinquante ci ay élèves loolu lépp ñoo xam ne liggéeyuñ donc euh, bëgg ngeen ku leen jàppale ay xale ngeen mais bëgg ngeen ku leen jàppale. waaw bëgg nañ lool kay ndax xam nga suñu yaay du ñu mun a mun ñu jënd saabu appareil di jënd ndox loolu day métti day métti ci ñoom ñëpp. ban classe nga def. man cinquième laay def. waa sa école sori na. sori na kay. waaw lu seeseen lycée Blaise Sène waaw. da dee jàngee. naa nu mu toll def ak fii 3 kilomètres la waaw. ba classe ngay def. cinquième. cinquième xanaa séeréer nga gën a dégg. waaw ma ah, man dégguma séeréer nag Lamine moo dégg séeréer <laughs> ñaata at nga am. 16 ans 16 ans nga am. chaque euh, dimanche yaa ngi fi pour fóot. fii bu amul ndox nooy. damay rooti. da ngay rooti. waaw ak jënd ndox aussi. waaw ndox bi ngeen di jënd mooy panturon. waaw ban classe ngay def. sixième sixième kañ nga commencé ñëw fii di fóot. yàgg na chaque dimanche yaa ngi ak samedi. waaw euh, yow tamit ci ñàkkum ndox bi nga fi nga def. waaw naka ngeen koy dundee. fii bu amul ndox da ngeen di dem ngeen ngeen jëndi ndox la ñu wax. nu ngeen di def. dañuy root da di roote. waaye bu root amul euh, pan juróom ngeen di jënd. waaw. leen samedi ak dimanche ana. léegi nag lan ngeen bëgg bëgg ngeen ku leen jàppale fii am ndox. ku leen defaral la ndox. ak courant. amu leen courant. déedéet. fu ngeen di jàngee guddi ko. seen kër. seen kër bu pour ngeen jàng guddi nu ngeen di def. niit. da ngeen di ñiit. ay téléphone. ak ak euh, acca xaaral voilà comme comme comme ni ngeen ko gisee ni mbokk yi ci ci euh, image yi ñu ngi leen doon wax sànq dex donc ñu nekk ñoom ñëpp ay ay ay ndaw di jàng euh, fii la ñuy ñëw nag pour euh, mën a am ndox pour fóot suñu amul ndox nag suñu paree bu ñu amul ndox dañuy dem jëndi ndox wala ñu rooti paan yi ñu ngi koy jëndee paan juróom am na kenn sànq benn xale bu ko wax koo xam ni liggéeyul day jàng nekk xale te seen yaay yi mu di seen wayjur yi mënuñu leen jox ñuy jënd saabu bëgg jënd aussi li ñuy fóotee teg ci ndox day xaw a métti donc mu nekk vraiment euh, loo xam ni euh, bëgg nañ ci bëgg nañ ñu jàppale leen ci parce que tey jii ñoom ndaw yi ñooy doon ëllëg dara euh, ci réew mi donc mu nekk benn situation boo xam ne vraiment mérité na ñu jàppaleen te du ndox rek du ndox rek la ñuy jooy ñu ngi wax aussi courant entre autres yoo xam ne ñu ngi koy jànkonteel ak bërëb bu fajukaay xam naa léegi-léegi dinañ dugg ci biir village bi comme ça ñu mën a dem fekk seen ay waajur foofu mën a waxtaan ak ñoom fii ci euh, Ngardiam euh, comme niñ leen ko waxee woon sànq ci ndoxteel bi bokk ci euh, Fatick Ngardiam séeréer la ñuy wax ngir ñëw waxtaan ak ñoom ci li askan bi di dund mu nekk cinquième numéro bi ni ma leen ko waxee woon lu ñu yem rek Ndakaaru dañuy génn itam pour xool yeneen dëkk yi yan jafe-jafe la ñu am gis nañu fii nag boobaak léegi ñu ngi wax jafe-jafe ndox li koy firndeel mooy xale yi ci dex bi ñuy nekk pour mën a am ndox mën a fóot mais également ñu ngi wax lu jëm ci wàllum courant di ak tàngaay bi wax aussi nga xam ne moo ci wàllum santé ba tey dañ koy wéyandil suñu papa bi ñu toog papa ñu ngi lay ziar. waaw eh, maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di eh, mbisandong ngoy ngar jàmm ngi leen di gërëm maa ngi leen di santa eh, jafe-jafe dëkk bi bu yeboo sax ma wax leen am na li ngeen ci gis premièrement boo seetee dëkku àll yi nga xam ne ay kilomètre kilomètre ñu nga courant mais nag dëkk bi ak yeneen dëkk fii yëpp ay séromètre ci tali bi te sondeel bu baax sax mënuñ ko am xam nga loolu taxul yi itam nit nga ñëwati ci dëkk boobu imposé nañ ne lii ak lii ba ñu accordé loolu ah loolu première courant bi bokk na ci jafe-jafe dëkk bi dëkk bi gis nga ni mu tollu boo seetluwee itam ñi fi am ay robine néew nañu torop presque bu bëree bëri motul diis ci dëkk bu toll nii waxatuma courant élèves yi gis nga classe yi yëpp fi ñu jànge bo gàttee ba gàtt war na mot au kilomètre deux kilomètres nga soog a jot fi nga jànge xam nga loolu itam tey na waar te yëpp eh, ci ñi sës ci nguur gi comme seen classe yi foofu la ñu mën a joytu be xëy na peut-être ñu am ti yaakaar yaakaar rek la ñu am nag parce que boo seetee presque lu mot dix ans a ngi nii da ngeen am courant da ngeen am ndox te yàppa moye ba léegi dara ci mënta am kon nag ku ñëw wax daal danañu wax rek yaa ngi dem dañ la wax itam ñu ngi xaar mais nag da ngeen am ndox da ngeen am courant ñu koy wax fii ay at yu bari laa la wax te ba léegi wax naa la sondee sax mënu fi tap fatu tabaski fatu tamxarat bugga lekk bokk na dinaa la may tey dinaa la may suba ginnaaw suba boo waxatee kooku ngay wax ne dinaa la may ba ñaari fan dootul gim du ñàkk pexe nag eh, mu wax rek nii comme ça mais dootul gim ne li nga ko dig dina ko jot dafa yàgg de lii ñu jooy nii dafa yàgg ci dëkk bi te dëkk bi nekk ci kaw tali bi lul seeseen gis nga courant bi ngoye poovin bi ba peccaka bi dëkk bii ngay génnee nii gis nga courant bi te fii ngay génnee dugg fi ñun ñoo bokk même même chef de village ah, am nga loolu itam day na waar te ñu bokk benn chef de village ah, ku ñëw nag dinañu wax suñu feebar ku ko faj ñu xam ne kii faj na suñu feebar waaw mais nag lii yàgg na fii torop te ba léegi dara gisuñ ko. li ñu gën a manqué daal mooy ndox ak courant loolu ndax yëpp am na fi juuma am na fi leneen am na fi waaye nag li ñu manqué daal mooy juuma bi ndax ay eh, mooy ndox bi ak eh, kii bi. Eh, ak ndox mi daal ak courant bi loolu daal la ñu gën a manqué waaw waaw e, léegi nag wax nañu fi affaire yi armel bi wax nañu ko yëpp pour ñu ko mën a miir daal loolu yëpp wax nañu ko waaye nag loolu ba tey dara dara ten génnewul waaw waaw e, ñun nag ñun ñun ñu ngi fi rek toog di ñu xaar rek élection bi waaw waaw eh, ndax nit bu mu waxoon nit dara dina fa jaaraat waxaat leneen. dañ leen digoon ci élection te boobu baag léegi defuñu ci dara. waaw waaw waaw loolu la hôpital bi ka am na fi mais eh, sori na de fare poofin la ndax ginnaaw poofin fare ndofu ngoor waaw ndofu ngoor rek lanu fajo ak loolu seen bi ngeen jub waaw waaw. Eh, lañ nag benn ekol école école na fi. benn école fi. Ah, déedéet. suñu suñu comité suñu arrondissement kii bi daal dëgg-dëgg village bi daal amul école bu gën jege fi waaw te fii war nañu am école ndax élèves yëpp dañuy faq dem fale te dëkk bi yaatu na torop waaw waaw. ñoo ngi ci kaw tali bi waaye amuñu courant amuñu école pour suñu élèves yi di dem jàngi fi ñuy dem jàngi mot na lu ëpp cinquante kilomètres ëpp na ko di ñuy jàng une la ñuy wàcc bu ñuy wàccee une heure ñëw fii trois heures ñu gontuwaat xam nga loolu métti na amuñu école amuñu case de santé loolu yëpp amuñu ko robine yi tamit robinet ñaari robinet yi moo am fii ñu nekk ci mbedd bi xam nga loolu métti na dañoo manqué ndox trop loolu moo waral xale yi di dem fële ci ndox ba ji ñuy footee foofu bu ñu amoon fii robinet est-ce que xale yi dinañ dem ci dex ba te ay élève lañ te xam nga footi ci dex bi nag baaxul mhm. ndax fas yi dañuy naan foofu dañ koy sang foofu nag yi dañuy naan foofu ñun tamit di ñuy foote foofu xam nga di manque ndox bi moo waral loolu bu ñu amoon ndox di ñuy footi ci ndax baaxul mën nañu indi si biiru sax loolu yëpp mu ngi si te woorul yàlla nañu yàlla musal ci si biiru sax waaw ndax kenn kenn bugg ko waaw waaye bu ñu amee daal ak courant loolu daal loolu ak école mhm. dina baax ci ñun trop trop trop trop trop sax mhm. waaw waa ngar jam moom sonn nañ trop sonn nañ mhm. élection bii di ñëw nag dañoo waxoon ne kenn du woote fii ngar jam ndax chaque élection bu ñëwee dañuy wax ne amuñu courant courant amuñu ndox bu élection bi passé ñu fàtte ñu tamit métti na waa chaque jour ñu lay ñu lay ko ñun tamit nag dañoo fas yéene waa dëkk bi yëpp kenn du dem élection di woote kenn du sànni foofu sa carte d'identité loolu la ñu wax fii waaw loolu lañu te fii loi bi ren jii kenn du dem foofu tant que amuñu courant amuñu ndox kenn du kenn du woote loolu la ñu wax ndax dañoo sonn te ñoo ngi ci kaw tali bi amuñu ndox amuñu courant amuñu dara mënuñu dem koom-koom sax amuñu ko boo amoon si ta courant bi boo amee sa frigo di nga mën a nga mën a yore xale yi yëpp xam nga lii bi ñuy jógee fii di dem jàng ji xam nga metti na naaj ak naaj bu tàng bi bu ñu ñëwee wala am ñaari deux mois ñu ne dañoo feebar nga bëgg a jóge fii di dem fale di leen faji foofu metti na de bu dee tamit boo amul saret li ngay toog ba berset nga door a yóbbu sa doom bi hôpital xam nga loolu tamit wóorul ci urgence lañ nag boo leen muñ ne dimbali daal ak ndox ak courant ak poste de santé wala école ñu ñu gën a kontaan si yéen. ndox amuñu loolu nekk suñu jafe lool ku ñu ko mën a dindil nag moom la ñu ñaan dëkk bi yëpp am nañu ndox am nañu courant am nañu robinet am nañu ci wanag yi am nañu ci ëtt bi yëpp am nañu duus yi am nañu waaye ñun bokkuñu ci te dañoo ñaan ba sonn ndax dëgg yàlla moom jafe-jafe moom bari na loolu sax bari na lool loolu moom moo ñu gën a soxal sax. te gis nga suñu suñu kii bi yëpp a ngi nii dem nañ ba ren boo ñu wax dinañ ko suul ba tey gis ñu dara dëkk bi yëpp dañuy fees bu bu tawee day fees dellu day fees dellu ak ndox ñu ngi leen di ñaan nag bu ngeen ci muñee dimbale ngeen dimbali ñu ci ndax dëgg yàlla sonn nañu nag ngeen dimbali ñu nag bu ngeen muñee dimbale lu ngeen ci muñ rek yàlla rek moo mën a dimbale ak yonante bi ngeen jàppale ñu waaw leen di ñaan nag yàlla rek xam waaw amuñu ndox amuñu dara bu ma nekk nii dama xëy nii sax di wut paanu ndox bu ma def sama ndaal ba waaye aw ma ko. jooy nañ fu nekk tamit fi ma ci njëkkee mooy jumaa ji moo ngi nii ngay seen dem nañ ci monsieur le maire ñaan nañ ndox amul dara te nañ fa mujj am yenn saa mu jeex ñu problème mu ndox amul courant amul dara solaire lañ am. ñoo ngi jooytu fa ne quoi pour ñu dimbali ñu nodd sax mënoo nodd ba waa dëkk bi dëgg ko def nañ six mois rajo bi waxul boo taqalee fortu dugal foofu deux trois jours mu paanaat ba ajuma bi passé ni man maa jiite sans rajo sans dara sax mënoo ko nodd ba nit ñi dëgg ko te courant bi moo ngi jaar biir dëkk bi mais xanaa ko amul waaw ku amul naa. yaay ku amul yaay nàmp ñàkk fu ñu wéeru fu dëgër ku mu ñu mun a ci loolu xanaa loolu suñu problème ñu dëmb rek heure bi dem juste maa ngi am monsieur le maire di waxtaan ak moom mu ne am naa ko fi yebal si ma gisaguñu kenn gisaguñu kenn ci wàllu kii table sore bi waaw jumaa bi quoi pour waaw. waaw ñu moom déeg bu feesee yal su tawee daanaka activité li ci ëpp yëpp su weesoo naan li ñuy naan li ci leen des yëpp foofu lañ koy defee te problème mu problème mu robinet la dëkk bi dem nañ ba cotis laaj leen fi cotisation pour pour ndox mi ba dëkk bi yëpp joxe quelque kër ay benn benn kër ñoo fi am robinet ñi des yëpp dara ndax pour nga am robinet fi nekk nii. mën nañ laa soixante quinze mille pour nga am robinet te mënoo joxe soixante quinze mille weer weer na ba déwén te du ñëw boo amul branlon daanaka boo amul branlon doo am waaw dëkk bi daal mu ngi nii problème moom la moo fi nekk xanaa wàllu njàng bi dara doxu fi xanaa li ñu sàq boo ngay dem wala ngoy mbudaay wala lu seeseen wala ndëfu ngóor fa ngay fa ngay dem pour jàng. def nañ demande daaw pour école arab fii wala école franco surtout boobu la suñu moo a am franco arab bëggoon nañ ko lool mais bunt bu ñu ubbi la pour ñu lijjante ko moo ñu të waaw ay ñoo ngi ciy ñoo ngi lijjante ñoo ngi waxtaan ak ñi ñoo ngi ñaan ndax loolu lañ mën. askan bi di dund yéen ko déggandoo mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne euh, ñu ngi koy jànkonteel fësal ko euh, ci ci euh, émission bi nga xam ne moom lañ fi def si tey donc jëm na ci lu mel ni wàllum ndox courant ak itam lu jëm ci wàllum santé ba ci sax li nga xam ne moo di école ndax pour xale yi jàngi faw ñu dox li nga xam ne moo di 2 kilomètres wala sax trois ngir mën a dem jàngi mu nekk situation bu métti boo xam ne bi ñu ko dalee jànkonteel yàgg na te lu ñu mën a comprendre lu ñu mënul comprendre mooy dëkk yi nekk ci gannaaw ñoom am nañu uh, courant uh, te ñoom mënuñu am courant donc bokk na ci li nga xamante si moom moo leen gën a metti loo xam ni fësal nañu ko te ñu bëgg ñu jàppaleen ñuy wax itam ni dañuy gis ni autorités yi dañuy déplacé wu di ñëw ci dëkk bi saa bu ñu dee waajal élection mais bu ñu fi ñëwee rek ba élection yi jàll bu ñu paree di booleem dig bu ñu leen digoon bu ñu paree duñu ci def dara loolu moo tax sax ci li nga xamante si ni wax nañu ko bu ñu sukkandikoo ci seen ay kàddu ñu jël nag décision ñoom ñëpp muy euh, boycotté li nga xam ne moo di élection yu ñu jàpp muy élection présidentielle ñu fas yéene amal ci atum 2024 bu ñu leen jàppalewul ci jafe-jafe yi nga xam ne moom lañu jàngote te ñu diggoon leen ko saafara ñu ko saafara ko du ñu fas yéene voté ci atum loolu mooy li nga xam ne moom la askan bi wax fii ci diwaanu euh, Ngarjam fii ci diwaanu Ngarjam donc euh, vraiment ñu ñu ñu ñu ñu leen li nga jàppale leen ci jafe-jafe yi nga xam moom la ñuy fii ci dëkk bi di leen remercier mu nekk seen cinquième numéro li askan bi di dund ñëwoon fii ci euh, Ngardiane bokk ci euh, diwaanu Fatick remercier équipe technique bi ñu nekkoon ci gannaaw Pa Omar ñu ngi koy remercier Ma Oumy également ñu ngi koy remercier bu baax a baax ak ki nga xam ne moo di Babacar euh, mi ngi woon ci gannaaw duñu jàppale Lamine Senghor tamit moom moo miin dëkk bi donc mi ngi woon ci gannaaw duñu jàppale donc doon ñu xamal li nga xam moo di dëkk bi vi que fi la a baax di leen ci seen beneen numéro li askan bi di dund jaa ngeen jëf.